màgg na ba yàlla tudd na ko ci alxuraan nettali lenn ci ay ngëneelam loolu loo ciy def yóbbal jox ko mbokk taalibe yi nga xamante ni ngi siiwul. jërëjëf euh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel mboolem jullit ñi ci weeru màgg wi nga xam ne mooy weeru koor euh, rawatina mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi siiwul xanawaatul xadra pour dund ak ñun. Euh, bési weeru koor bi ak layaali ramadan hmm. muy euh, dund boo xam ne moom lañ baaxa woon ci maam yi ba ci bàyyi niñ ko daan dundulee fii ci Medina noonu lañ koy continuer di ko dundalee hmm. ndax weeru koor comme ni ko suñu sëriñ waxee euh, ci xutbaam gi hmm. xutba gi rek ku ko tekki woon doy na nasiha ndax lamboo na mbooleem li nga xam ne mooy njëriñu weeru koor mm-hmm. ba ubbee xutba ga lu mu wax mooy lan alhamdulillahi alladi jaala siyaama junnatan lil muttaqin mm-hmm. wa shahra ramadana mubarakan lil muminin mm-hmm. wa marbahan lil abidin wa habiban ila qulubil arifin loolu rek ku ko firi dafay doy ngir yóbbal ndax pakk la boo xam ne dafa ñeel ñi ragal yàlla di luñ barkeel ñeel ñi gëm yàlla di soppe boo xam ne mboolem xol yi ñu xam xam yàlla bu weeru koor wi terew dañuy xam ne seen soppe tero na ba pare di tono eh, ñeel képp ku jàmm jàmm yàlla kon weer la woo xam ne ni ko xadis ba waxee shahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maxfiratun wa axiruhu itqun min an naar weer la woo xam ne njëlbeen gi yërmande yàlla la digg bi njëggalam yàlla la muj ga ngaroon ak yàlla ci safara la kon képp koo xam ne weer wi teru na hmm. war ngaa góorgóorlu ba yooyu ñu tudd yëpp nga mën cee am man cee bénéficié wu weer la woo xam ne dinañ dolli wërsëgu jullit ci biir weer bi mm-hmm. shahrun yu fihi risqul mumin inda allahi tabaraka wa taala loolu la xadis bi wax mm-hmm. xadis bi nga xam ne moom la bàyyi tëjee xutbaam gi mooy xadis bi làmboo lépp mooy xadis bi nga xam ne yonent bi dafa wax ne qad azallakum shahrun azimun mubarak mm-hmm. shahrun fihi laylatun xayrun min alfi shahr mm-hmm. shahrun jacala allahu lakum siyaama yowmihi faridatun wa qiyaama laylihi tatawaan mm-hmm. fa man taqaraba fihi ila allahi taala bi adaai xaslatin min xisaa xisaali alxayri kaana kaman addaa faridatan fi ma siwaa wa man addaa faridatan fiihi kaana ka man addaa sab'ina faridatan fi ma siwaa wa huwa sahru sabr wa sabru sawaabuhu aljanna wa shahru almuwaasaatu shahrun yuzaadu fiihi risqu almumini inda allahi tabaraka wa taala fa man taxaraba fiihi ila allahi taala bi adaai xaslatin min xisaali alxayri kaana ka man addaa farida kon weer woo la woo xam ne lim moo ci ay njëriñ bari na lool hmm. weer la woo xam ne ku ci def benn jëfin bu rafet mu ngi mel ni def nga farata hmm. ku ci def farata mu ngi mel ni def nga juróom-ñaar fukki farata hmm. eh, te yàlla may la ci loolu yëpp lu yomb la ndax beneen xadis wax na ne ku ci dogal kenn ku woor yàlla dina la jox yool yi kooku te du wàññi ci yoolu kooku dara li ko yonent bi waxee saxaabay dañu ko wax ne ñun amuñu lu du ñun ñëpp am luñ dogalee koor mu ne yàlla dana jox yool bi képp koo xam ne dogal nga kenn ku woor ci benn tàndarma wala góoxi ndox wala góoxi ni meew kon xam nga loolu yomb na waaye li ñuy digal nit ñi mooy koor du lekk ñàkk lekk ñàkk naan rek koor ay jikko la koor ay jëfin la fokk fonk jaamu yàlla duble li ñu daan def ci jaamu yàlla ci jàngal xuraan ci topp lépp loo xam ne ne mooy xiw ndax beneen xadis wax na ne man lam yadaa qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yatruka taamahu wa sharabahu hmm. koo xam ne boo ooree doo bàyyi waxi mbóosóor wala nga koy jëfee mm-hmm. kooku yàlla amul soxla ci nga bàyyi sa lekk ak sa naan mm-hmm. kon koor du ñàkk a lekk ak ñàkk naan rek mm-hmm. waaye koor ay jikko la koor ay jëfin la koor maandu la koor bul wax ndax nit war naa moytu di wax ci mbokkam ndax bu loolu mën naa yàq sa koor te mën na ko mën naa nangu sa koor jox ko kooku kon daal nañ woor ni nga xam ne moom la daan yonent bi di wooree mooy woor ci bëccëg bi dundal guddi yi noonu la daan suñ sëriñ di ooree mm-hmm. loolu mooy li fi nekk ba léegi mm-hmm. loolu loolu la ñu digal yëpp mm-hmm. weer la woo xam ne bu ya bu teroo yàlla dafay jéng seytaane yëpp kon nit lu lu sàggan sàggan sàggan bu fekkee jéngal nañ ko seytaane kon war naa mën a góor góorgóorlu ba def ci loo xam ne yàlla dana ko ci jéggal mu amee ci mbaam yàlla kon ñu ngi dénk mboolem jullit ñi di leen ndokkeelaat